jëf mbokk yéen tax na tu bpactu point com ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal te fas yéene ñëwaat ak yéen ci seen xibaaru analyse comme ni ñuy faral di ci ànd ak yéen saa su nekk ba tax na nag tey jii li gën a fës ci xibaar yi. bokk na ci nakar ak tiis bi xewoon ci région bu kaw Kaolack plus précisément ci quartier bi ñuy wax Ndorong foofee nag benn immeuble moo fa daal di daanu ñu gis ni nag ay blessés yu bëree bëri am na ndax moment. bi askan bi yëpp taxawee di ah, seetaan sapeur pompier ah, daal di teew sur les lieux gis nañu juróom-ñaar ba jàpp juróom-ñetti nit yoo xamante ni ah, ñoo ngi leen di génne ñu daal di inconscient mën nañu sax juróom-ñetteelu nit ba moom moo ca xawoon na tane waaye ñu ci ëppati ñoom bu leen génnee rek daanaka da nga naan ñi ñàkk nañu seeni bakkan ak ñeneen ñoo xamante ni daal di nañuy génn àdduna bés boobee ba ñu saytoo seen identité nag gis nañ ni papa yaay ak doom ñoom ñëpp ñoo génnandoo àdduna ñoom ñu toggandoo woon ci même a euh, euh, ginnaaw ba euh, kër googee doon na daano enquête bi nag ubbi woon nañ ko blessé yi ca baree bari ñoo ngi woon kër docteur ngir ñu daal di leen di saytu donte sax seen situation grave woon na loolu askan ba ci saa si ñoo ngi doon na sàkku ndimbalu meero koñ ba ngir rekk mu daal di leen di dimbale ci oto yu mag yi nga xamante ni moom moo mën a dind xeere ba ñu saytu ba xam amul ay euh, nit yu nekkoon euh, ci euh, suuf waaye nag ginnaaw ba ñu xaaree ba sonn gisuñu ñoom ñoo daal di mujjee jël seen initiative bopp ñoom góor ñi jël xeer yi di ko sànni ci biti ngir xool ba xam am na ay nit yu fa nekk am déet ñu gis ñi nag quartier boobee ñoom ñoo ñëpp ñoom ñëpp a génnandoo boole seen doole a jàpp jàppale sapeur pompier ci liggéey bi nga xamante ni nag doon na nekk liggéey bu uh, metti lool uh, te effectivement nuñ ko waxee woon noonu la amee ñoo ngi doon continuer di gis ay nit yoo xamante ni ñoo ngi woon uh, ci suufu xeer yi nga xamante ni ñoo daanu woon ndaxte oto ba cheroon na cher ba nga xamante ni mun ñu woon jóg-jóg rek daal di koy luwee ci saa si oto ba ñoo ngi ko waroon a luwee lu tollu ci huit cent mille francs CFA bu ñu am lu woon ndimbal toog di xaar rek ay bakkan yu bari mënoon na faa jaaree daal di uh, roto papa yaay doom génn ci àdduna ñëpp di ko publier ci réseaux sociaux yi ñëpp di ko nakarlu ñu gis ni nag c'est pas la première fois lu ni mel daal di uh, faral di am ay immeuble yoo xamante ni day daanu ci kaw doomi adama ay uh, kër yoo xamante ni dañuy fàtte ni seen délai jàll na ba kër googee daal di daanu tey def musiba ñuy soog jël rek initiative initiative daal di koy toc xew na fi xewati fi ah, ba fa mujj rek mi ngi xewoon ca diwaanu Medina bés boobee nag ah, ci ab daara rek la daal di daanoo ñu gis na ay yu bari amee nañ ci ay gaañu gaañu ba ci ab soxna ah, soo xamante ni sax ab jeune fille bu tolloon à la fleur de lage la daal di na ci ñàkkee bakkanam ñu ni dee towaay nag ca diwaanu. Parcelles Parcelles Assainies rawatina ci marché bu Gueule Tapée bi immeuble moo fa daal di daanu ci ay commerçant ba am ñu fa daal di ñàkk seen bakkan coow loolee nag askan bi jooy nañ ko ba noppi amuñu ci solution saa su nekk nag ñuy faral di gis la même chose mais ana moo waral rek ay immeuble ak ay kër di faral di daanu de cette manière loo xamante ne mënuñu fexe ba xam lan moo ko daal di a waral ah, des fois mu nekk ay kër yu màgget waaye des fois tamit mu nekk kër yoo xamante ni mënoon a teniraat ay année si kanam laata muy daal di daanu justice daal dina ci ubbi enquête cette fois ci yoon ki mu teg loxo moom moo di ah, borom boulangerie bi nekk ci ah, suufu kër gi daanu ci diwaanu Kaolack moomee nag jàpp nañ ni daal li nga xamante ni moom moo fa daal di xew boulangerie ba loxoom setu ci ndaxte dafa mel ni am na ay branchement yoo xamante ni warul woon wala ay installation yoo xamante ni warul woon lu daal di euh, causé boobee accident donte sax moom ay euh, matériel am daal dina ci yàqu ba ci boulangerie ba yàquwaale na ci waaye justice daal dina koy jël lekk yóbbaale ko ngir euh, li nga xamante ni moom moo di les besoins de l'enquête en tout cas mbokk yi nañ waat xel bu baax a baax ci yenn kër yi nga xamante ni mënatuñoo tenir wala yenn kër yi nga xamante ni daal jamono ji leer na leen li ciy des un an wala benn peu continuer euh, di fa dëkk dafay laaj ñu daal di génne askan bi rek ñu daal di dem ndax ku xool li xew euh, tey ji xam ne yaram daw na papa yaay doom ñoom ñaar ñëm ñett ñëpp ñu daal di génnandoo àdduna euh, ci même pièce bi sans oublier tamit bi xewoon na Thiès la même chose moo xewoon ci benn juma ci nawet bi papa ak doom ñoo génnandoo àdduna ginnaaw ba dalu juma ji daal di daanoo woon seen ak kaw ñu leen di masto bu baax a baax seen mbokk ci nakar ak tiis bi nga xamante moom la bokk mbokk mbokk yi dinañ jaajëfal te jox leen dëgg daje bu suba ak jàmm incha allah jërë ngeen jëf.